yéen ñi safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun dalal nag jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi dañu koy door ak coow bi am ci série bi di Cirque Noir gannaaw nag bi leen waa ONG Jamra ak ñi nga xam ni ñoom la ñu àndal di xeex a valeur morale ci réew mi yóbboo ci yoon muy producteur bi actrice yi ak acteurs yi nga xam ni ñoom ñoo def série boobu nga xam ni dañoo jàpp ni mbirum pornographie rek la ñu cay eh, wone division spéciale bu cybersécurité moo ngi leen kër saa su ne Baye Abdourahim Seck nekkoon xalif général bu Thiénaba gannaaw bi mu génnee àdduna ci altine bi ñu weesu ca Maroc jébbal nañu ko boroomam ni ki démb ci alxames bi ca diwaan ko cuuti di dëkk boo xam ni digganteem ak Thiénaba ñaari kilomètre la gannaaw bi ñu ko jullee ca grande mosquée bu Thiénaba ci lañu ko nag euh, daal di gunge mbooloo mu takku ànd ak moom euh, ca cuuc euh, di dëkk boo xam ni fala rek Baye Abdourahim Seck féete woon daan fa jàngale alxuraanul karim ay tool ba bés bi nga xam ni ci la toog ci jal bi yemoo woon ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin atub de 2020 bi ñu weesu gannaaw yoof jëwriñ bi nga xam ni moo gàlloo kaaraange biir réew mi ca diwaanu ko euh, euh, ci ndigalu njiitu réew mi ngir jébbal euh, njaalam ak njaaluk askan wi yépp njabootu ki nga xam ni moo di Baye Abdourahima Seck si àjjuma tey ji nag la ñu fa war a dem ànd ak délégation wam mbirum tricherie te ñu nemmeeku woon ko ci bag bi ak nag ci BFM bi ren agsi na ba ci concours yi ndax ñaari candidat yu doon def concours police euh, kenn kii di wuyoo ci Esfal keneen ki Agey la ñu placé sous mandat de dépôt ndax mbirum tricherie euh, ñoom nag euh, daan nañu leen ñaari weeru kaso yoo xam ni fukki fa ak juróom ya dañu koy tëdd gannaaw ba ñu leen àttee ni ki démb ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru bi ñu leen di déglu nag ki nga xam ni moo di Esfal xamlew na ni rek ca ba muy def épreuve droit yi si lañu ko jàpp nga xam ni defoon na épreuve yooyu ba pare la envoyé woon sujet bi par whatsapp ngir mu defal ko ko ba tey ki nga xam ni moo di àggay surveillant bi da koo bett muy recopier ci kayem euh, euh, ñu dem ca diwaanu ko mbaaw foofee nag ñaar fukki euh, ñaar fukki nigérien ak ñett lañu fa daal di teg loxo ñoom ñëpp nag ay góor lañu dañoo loué woon benn kër ca diwaanu ko mbaaw ba noppi créé fa ay faux compte facebook ngir di si nax yenn ci ay internautes jaarale ko ci ay identité numérique ak yeneen i pexe yu aju ci euh, espace euh, ñoom nag dañu doon def ay annonce ci seen compte yooyu ngir di nax internet yi euh, di jël seen xaalis di leen nax wala nag di leen chantage ñu jàll ci basum covid 19 beeg tolluwaayam ngir dégtal leen xayma basu tey bi yemoo ko ajjuma fukki fan ak ñett ci weeru août atum 2021 waa ministère de la santé xamle nañu ni si ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn test yi nga xam ni jot nañu ko amal juróomi téeméer ak ñeent fukk ñoo ci am doomu jàngoro jamono ji si ñoom nag bokk na ci juróom benn fukk ak juróom ñaar ñoo xam ne ay jege ñaa di ñi nga xam benn fukk ak a na ci lim ñi nga xam ni ñoom ñoo faatu uh, ci mbasum covid bi lu toll ci nag juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn si ñi nga xam ni ñoom la mbas mi bi tëraloon euh, wër nañu euh, bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi nag limu ñi nga xam ni ñoom ñoo ko am euh, fii ci réew mi àgg na ba ci soixante dix mille cent vingt cinq ci ay doomu aadama si ñoom nag cinquante mille quarante quatre yu jot nañoo wër ñu am ci cinq cent soixante dix ñoo xam ni ñàkk nañu seen bakkan jamono ji nag barabu fajukaay yi quinze mille cinq cent dix ñoom ñoo fa nekk ñuy ñaan suñu borom wéral leen si jàmm ñu des ci mbas mi ak xalaatu boroom xam-xam yi ci seen xel màcc ñoom nag ñoo ñoo euh, ñoog waa guvernement bi ñoo bokk euh, ni ñu gisee rek euh, seen gis-gis ci yokkute kaay yi ndax gouvernement bi ñetti dogal la ñu jiital ci xeex bi te mooy dëppoo ak mesure barrière yi fexe ba yokk place yi ci barabu fajukaay yi waaye itam gën a gaawal campagne de vaccination bi te loolee nag la spécialiste yi daal di sàkku lu métti moo xew ca diwaanu ko Grand Yoff ca quartier Missira te mooy rek benn accident bu métti ba fa xew démb ci alxames bi ndax benn car rapide moo jaar ci kaw benn xale bu góor buy wuyoo si turu Ibrahima Ba ay atam toll si ñeent euh, moom nag ci saa si la daal di euh, faatu chauffeur bi ak apprenti bi itam euh, noonu la dawee ba tax police moo ngi leen di wër askan ba fa nag ñaawlu nañu li tax chauffeur yu car yi du ñu jaar ci yoon yu normal yi waaye nag ci yoonu xat yi lañuy jaar ngir di teggi montage u policier yi alxayri jibaat na ci sunu célébrité yi gannaaw Aïda Samb ak maxu subateel Amina Poté nangu ko euh, célibataire gi ndax moom animatrice bu télé Futurs Médias bi am na borom kër euh, ni ki démb ci alxames bi kon jamono ji madame Diouf lay wuyoo rédaction bu Sénégal 5 ak bu 5 TV nag ñoo ngi koy ñaanal sëy bu barkeel te di ko wax heure ménage fi la ñu xibaar yi ma jox leen dig daje ëllëg incha allah waaye laata boobu nag wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte bës ci cloche notification bi ndax ngeen di jot vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf